المصطفى نويت ما يجدد سنته فلا وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته فلا وإني billahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa wa man ittabaahum bi imaanin wa ihsaanin ila yawmi ddin yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen nuyoo ci pàkk bu tedd bi ñu nekk muy barab bi nga xam ne fi lañu denc maam Abdul Xaadir Mbàkke maam Abdul Xaadir doonoon doomi maam Balla Aïcha maam mu maam maaram maam Abdul Xaadir mii moo doonoon doomam ju mag doonoon ab taawam si Mor Anta Sali mi jaboote mi nga xam ne mooy waajuru Serigne Touba toppoon ci moom moom Serigne Abdul Xaadir moom lañ denc fii muy pàkk bu tedd boo xam ne fi lañ leen di nuyoo moom nag li sabab ñu denc ko ci barab bii nii defe naa loolu siiw na ci taarix ci ne ginnaaw bi nga xamee ne génnoon na bis àndoon ak euh, mbokkam mu ñuy wax Serigne Ahmadou Dieng Mbacké ñu génnoon ñoom ñaar doon doxi ay yitte ginnaaw bi ci la leen noon yi dab bi leen noon yi dabee ci la ñu am lente ak ñoom ba faat ko ci moom moom maam Abdul Xaadir mi loolu mi ngi amee woon fii ci yoon wi ja eh, yoonu laaw yi ci la amee woon ci yoonu laaw yi ci la loola xewee woon ci lañ leen eh, addu kalpe yi kale karee woon am leen teeg ñoom ba faat ko ci ginnaaw bi ci lañ ko denc ci barab bii nii mu doonoon it nitug yàlla koo xam ne amoon na cër lool lool cër bu rëy rëy boo xam ne day mel ne loolu waraloon na maam Balla Aïcha bàyyi woon ko xel bu baax a baax cer boobu mu amoon cër cër cër boobu mu yàlla taxoon mu bàyyi woon ko xel moom way jëram boobu bàyyi woon ko xel bu baax a baax nitu yàlla ko kii mu doonoon bu ñu delluwaatee ci taarix ci histoire danañu fekk lu bëree bëri di ci leer ndax ginnaaw bi ñu ko faatee Mame Balla amoon na ci aw naqar wu tiis lool amoon na ci naqar wu tiis lool ba faat googu ñu ko faatoon sax wax nañ ne moo waral Mame Balla bàyyi ko fii Mbàkke suufus Mbàkke si mu dëkkoon yilifoon ko mu nekkoon ci ak moomeelam faat gi ñu faat Abdul Xaadir naqar wi mu ci amoon ak tiis googi tiis woowu mu ci jëlee woon ma waraloon mu bàyyi ko fii daal di tux dem ngay wane ne suuf suñ faatee Abdul Xaadir daal mu mënatu cee nekk suuf soos daal mu fiy nekk di gis euh, euh, naqar woowu yi mu muy dund dafay mel ne suuf soos da koy fàttali ko da koy da koy fàttali toll moo waraloon mu gàddaay bàyyi ko fii. Euh, nitu yàlla ko kii mu doonoon bu ñu delluwaatee ci histoire dañuy fekk lettre bi nga xam ne ginnaaw bi mu faatoo Sëñ Mor Anta Sali mi nga xam ne moo toppoon ci bi toppoon ci bind na benn leetar di ci jaale maam di ci jaale maam Balanche leetar boobu euh, buñ ci delloo dañuy seen ni mu koy waxee cër cër bi nga xam ne moom amoon na ko ci yàlla dañuy seen ci leetar boobu moom mu di ko tudd lu baree bari di xamal it maam Balanche ne ko lu mel nii wàcc sa kaw war nga koo mën a war nga cee mën a war nga war nga koo mën a defaloo ci gaa yi baax yi nga xam ne ñoo jiitu woon ndax ku ci nekk rek day mel ne li nga gënoon a fonk yàlla wàcc na ci yow am natt nattoon na la ci. demee ne natt boobee nag yow sab cër moo egg ci tay moo moo egg si tey jii yàlla jaaree ko ci Abdul Qadir mi yàlla jaare ko ci Abdul Qadir mi kon dafa mel ne borom cër la woon ci yàlla borom cër bu rëy rëy la woon ci yàlla ginnaaw bi ñu ko faatee nag ñu ngi ko faat ci at mi nga xam ne moom la wax 83 am na ñu ne 83 la am ñu it ne 81 ci lañ ko faat ndax day mel ne 83 ci li gën a lëng day mel ne fekk na mag ñi dem Saalum wii ji woon ca woote boob yi nga xam ne Maba Jaxu Ba woote woon na ko. kon 83 dafay mel ne li gën a lëng day mel ne maam Balla lañ ci faat ndax seen diggante ñoom ñaar diggante faatu ko Abdul Xaadir ak faatu maam Balla day mel ne ñaari at lañ rawante biñ faatee Abdul Xaadir mi maam Balla ginnaaw bi mu a amee foofee ak dëfal ba mu eggee ñaari at la fa defaat rek moom itam lu mel ne li wàccoon ci Abdul Xaadir daal di wàccaat ci moom li wàccoon ci Abdul Xaadir daal di ci moom kon ci boobu lañ ko faat ginnaaw biñ koy faat it bàyyi na fi eh, ñaari doom bàyyi na fi ñaari doom jenn doom ji moom la ñuy wax euh, Serigne Bakke Soxna Serigne Bakke Soxna ku ñuy wax Soxna Seck moo ko moo ko mooy wejuram bu jigéen ak euh, Soxna Asawaanu Mbakke moom itam Soxna Bousso moom moo ko jur Soxna Bousso moom mi euh, bokkoon ci njabootu maaram googi doonoon sët ci maaram moom kon euh, defe naa loolu la fi bàyyi ñaari doom yooyu la fi bàyyi waaye njaboot googu mu fi bàyyi nag dafa mel ne ak meññ am na ci lool ba ci askanu Mbàkke ak mboolem foo xam ne des na fa sàkkoo barke amul fenn foofu teg sa tànk lu dul ne fekk nga fa kenn ci njabootu euh, sëñ Mbàkke soxna koogi nga fa kenn ci njabootu sëñ Mbàkke soxna koogi ab cër it yàlla defal na ko fi ndax euh, dafa mel ne ginnaaw bi mu jógee wax nañ ne am na kaamil boo xam ne tàmbali ko doon ko bindal sëñ sëñ sëñ sëñ waajuram sëñ maam Balla doon na ko bindal benn kaamil kaamil boobu mi ngi fi des ba tey day mel ne waa waa kër maam Balla Aïcha ñu ngi koy doonante ba ku ci féete mag kaamil boobu ci sa loxo lay nekk mi ngi ci biir Mbàkke Kajoor ci loxol Cheikh Mamadou Moustapha ñu ñaanal yàlla gën koo dolli dëgëral ginnaaw bi ñu koy faat moom Serigne Abdou Khadre mi mi ngi tolloon ci juróom benn fukki at ak juróom benn ci ni Serigne Moussa Ka waxee kon ñi ñaan yàlla dolli ñoo taas ci barkeem te dollee eh, eh, wàcce barke ci njaboot gi nga xam ne moom la fi bay barakati Serigne Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gën a muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw loolu ñu ngi fii ci barabu kenn ci magi Cheikhul Khadim kenn ci nga xam ne ci magi yoon mu di ci la bokkoon muy Serigne Mbacké Soxna mi nga xamee ne nii doomi la doomi Mame la moom Mame ak ki nga xam ne nii mooy Soxna sekk barab bii fii nag mooy ci suñu ginnaaw fi nga xam ne fi lañ ko denc ginnaaw bi nga xam ne wàcc na ab liggéey ci ndigalu euh, sëriñam léppam mbokkam muy Cheikhul Khadim waxoon suñ Mbàkke Buso ne ko yóbbu ko ci wetu xaritam ba soppeem ba mooy suñ Maamoo Jaara teg ca ne ñaar ñoo xam ne musuñoo tàggoo ci seen di dund buñ fi bàyyi ko duma leen tàqale looloo waral mu ñëwoon fii ñu dàkk fi denc ñoom ñaar boo xoolee dara manees naa wax ne dara doxuwul dara doxu seen diggante loolu nag li koy li koy li koy li ko waral mooy digal li nga xam ne moom la ci Serigne Touba joxe woon ci biir loolu nag njaboot gi baaxoo chaque saa buñ dëgmale màggal gi nga xam ni suba la incha allahu rabbi muy war a doon fukki fan ak ñeent ci ci weeru Tabaski tu fekk fële ñett bi nag say sak ayu at bu jot ñu daal di ñëw fii ci barab bi ngir ziyaare ñaanal ñi nga xam ne nii ñoom la yàlla def ñu fi bàyyi taas yi seen seen barke boobu bi nga xam ne moom bi amoon moo tax njaboot gi daal di ñëw daje fii ngir wàcce fi ay ay kaamil def fi ay ñaan ñaan yàlla taaj ñu seen barke ci barke Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullah Muhammadun huwa Sunu